yaa yaa yaa par exemple ñëwaat ci beneen façon <laughs> tey fii laa ñëw day tey moom maa ngi maa ngi maa ngi dund sedd mi nag sedd maa ngi commencé ñëw dafa yéex a ñëw nag wuy ma sunu xale jigéen ñi gis nga li ñu jubte temps yi ci sance bu bon ah, léegi sax sexe xewi na vulgaire moo xew dal na benn femme mu sol tay ut bu yëg ba fii ci biir bi ba romb ñi ba xam teg ci korok top di yëg super mi ma fekk ci biir super bi na muy yéegee fekk na fi katang fi fi katang fi salon bi fees na le temps que muy toog yow cinquième personne boo ñëwee foog nga def nii toog femme bi dafa dijj daye nek nekk ci koñ bi di ciib ciib yi mu gis naa ko ma aju ko bañ koo paasal mais ni mu naan di dugg ak taawur bu seere bi ne tuut ci oto bi <laughs> ne ko jàkk di ko xool daan <laughs> bu mu dandal da ko nii man la de maa ngi jégalu yi de ma xam ne déchargé wu na mu ne man la de gars yi jégalu bu baax waaye jégalu de pam di waxtaan ak gars bi jëlante numéro am noonu mu ñu ko doxal ñu gérer moom moom moog waa ji nakate waa ji tàkkat la nakate waay man de kat def mu takk ko. ñu am un an de mariage deux ans de mariage nekkate waa ji saa demee baar ba ñëw day mandi ba mu xaw a def mu nekk day ñëw fekk femme bi tëdd mu day lal bi yëpp <laughs> femme bi dara bi weex ndax pour ñu mag bu ko bu ci jaxasoo yoon noonu day xaw a kii ba benn jour femme takk ay bagages am day ñibbi mënatul fóot day mag saa tëll <laughs> Juga barba. eh nijaay kaay kaay kaay kaay kaay même sama baat damay ñibbi mag ji buub moom mënatuma koo déséré foot bu ni xool ni ma sama kër yaay mu ñëw nga da bëgg seen kër yow de toute façon yow ay doxatoo ñu boole woon da nga fàtte ci kaar ba kon bu ñu day tàqalee moom yow partenaire nga am nga say bagage nga dem noonu la ñibbee